ma ne yéen yéen yéen waa Pastef Canada ñan leen a xeexal damaa laaj yéen waa Pastef Canada ñan leen a xeexal yéen investiture rek le candidat de pour investiture rek Canada ngeen collecté 17 millions 500 17 millions 500 yéen a kana ah da ngeen noo jaay ne da ngeen am xaalis <laughs> waaw baax na <laughs> baax na bàyyi ñun leen ba ñu samp ñu investiture ñun ñun Sénégal Sénégal yëpp. di seen million ngeen lii da ñoo jaane ne da am alal baax na ba ñu samp ñu investiture yi nga xam ne la bëgg la lépp lépp lépp lépp laa bi si na dix-sept millions cinq cent si vingt-quatre est-ce que mat na vingt-quatre heures waaye yéen waaru leen abonné leen si Mbaye Mandione TV ba leen ko fàtte nag Mbaye Mandione TV sama seen YouTube la dama si bëgg commencé liggéey nag dégg ngeen.